ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة جلننجي سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن يلا قرمكو an innabi sallallahu alayhi wa sallama mu jëlee ci suñu sang yonentu sallallahu alayhi wa sallam qaal yonentu wax na ne qaala allahu taala suñu borom subhaanahu wa taala nee na kaddabani ibnu aadam doomu aadama weddina ma walam yakun lahu dhalik te loolu de waru ko wa chatamani mu saagama walam yakun lahu dhalik te loolu de yàllul ñeel ko fa amma takdibuhu iyaaya weddi gi ma weddi fa qawluhu mooy waxam lan yuciidani kama badaani yàlla duma delloo gannaaw bi ma dee bindaat ma dekkilaat ma kama bada ani ni ma tàmbalee woon bind ma walaysa awalul xalqi te déet bind gu njëkk gi bi ahwana alayya muy gën a yomb ci man min icaadatihi ci dekkal ko wa amma shatmuhu daal saaga gi mu saaga iyaaya man fa qawluhu mooy waxam ittaxada allahu walada yàlla jàpp na doom askane gi ma askane doom wa ana taman yàlla al ahadu may kenn ki assamadu ki ñëpp jublu du laquwaayu faw bi di laquwaay bi ba faw lam alit juruma walam ulat jureefuma awma doom awma wayjur walam yakun lahu walam yakun lii ñeeluma nekkul ñeel ma kenn ku fandi nawle kenn du sama nawle duma nawle kenn rawahul buxaari walam yakun nekkul lii di ñeel mahadun kenn kufaan di nawle rawahu lbuxaari buxaari soloona xadis ji wa kadalika nasaiyu imam nasaayi naka noonu masalatu lbaath dafa bokk ci pas yi nga xam ne yu fondamental lañu am nañu ko weddi ci wax ak jëf am na ñoo xam ne it ñu ko gëmee it seen jëf wanewu ko am na ñu ko weddi ci pas-pas weddi ko ci wax weddi ko ci jëf waaye am na ñoo xam ne suñ ko gëmee it ci xol seen jëf ak seeni wax dafa leen di weddi duñ jëf-jëfi ku gëm ne danañ taxaw ci kanam borom bi mu xisaab leen duñ ko wax itam yal nañu yàlla musal ci catégorie yooyu yëpp dimbale ñu it ba buñ bokk ci ñu koy booleek kenn booleeg pas-pas walla booleek jëfandiku am na ñoo xam ne ni borom bi waxee ci hadis ji la ñuy di ko askanee doom ni kii ñuy tuddee seen boppu chrétien am na it ñoo xam ne it seen bànneex lañ ko booleel dana wax dara bànneex bi wax leneen ñu ba fa topp bànneex bi boobu xeet la ci shirk yal nañu yàlla boole musal ci xeet yépp yal nañu yàlla may yaara bi yal nañu yàlla may yàlla yal nañu yàlla may yàlla yaara bi